jaaral non, mom ngeen di seen si otom bi noonu muy jaar noonu euh na kon wa buñu tuddé non dafa melni ni kon kii di Adji sar yexina na eh ngeen seen noonu si oto bi